dégg nga yenent bi mm-hmm. avant yàlla di farataal xeex mm-hmm. julli ñi dañu wax ah moom kay yéeféri nii ñun na tey ñun koy yàlla war na dogal xeex nangam nangam coow coow coow ba marday taali mm-hmm. léeg-léeg noonu muy amee ci ñooñe itam lay amee ci ñun day ko ah ñun koy waroon nañoo ko <hesitation> formé benn kuréel wala genn mbootaay wala benn nangam nangam ngir di ci defaanar nangam nangam waaye buñ ko bu affaire bay tàng ñi kaw jiite woon ñëpp ku ci amul fay da nga dellu ginnaaw ku ci amul pas-pas rek da nga dellu ginnaaw dégguloo kutiba dogaleef na farataaleef na bi maanaam aleykum ci yéen alqitaalu guerre yàlla moo farataal ci yéen waru nga ne war a xeex ak yéeféer yi te woowa boobu kurxun jël rek xoola masdar mu taxawal ko taxawaay ismu mafool place ismu mafool makruhun la woon mu jël masdar nag ñoo ko placé ismu maf'ul mm-hmm. loolu dagan na lu ngeen siib la lool bañ ko lool mm-hmm. lakum seen bakkan nanguwu ko de mm-hmm. ndax yéen nga xalaat njaboot geeg sa soxna seeg sa oto yeeg sa kër yi waa amaana amaana yàlla nag mooy wér na amaana an takrahu ngeen bañ sooy an lëf mbir te waxoo mbir ma ngeen di bañ xayru lakum moo gën ci yéen nga gis mbir ñu bëgg la ci dugal sa bakkan sib ko lool fekk mbir maa gën te bu la gaa yi mante mante ba dugg ah man kay li su ci dugg doon kat nag la ko dëgg bi peccam ginnaaw loolu rek ngay mujj wax gis loo wa huwa xayrun lakum wa asa amaana an tuhibbu ngeen bëgg soyaan mbir te woo mbir ma sarrun lakum moo gën a bon ci yéen léeg nga bëgg mbir mu ca fu nga dugg ci da ca darti darti dem ba ni la gaa yi di la ci jéem a génne ah tabaarakallaahu nga dëgër bopp ne man daal xas naa engagé rek amatul arrière wawle rek la nga am ah man kay su ma yëgoon la ma gars yi duñ ma def ko rek bi bu seen nga dégg ko ah man kay su ma yëgoon toog rek su ma yëgoon kay du ma dem Italie de bi bu seen nga dégg Modou Modou buy caali doo ko dégg fii ah sa waaye kay Europe kay man kay sama téeméeri junni ak sama ñaari million kay su ma yëgoon kay continuer ko fii rek te yow fii nga ko liggéey ba am ko fee dem téeméeri dërëm tëla fa hmm? Hmm. kenn mësul dégg loolu lépp nag te gis nga atte aaya jooju mm-hmm. tabaarakallaahu dóor na ci mu xaabala boo xam ne te nga takrahu ak tuhibbu mu mm-hmm. xaabala la mm-hmm. xayrun ak sarun nag ma ngoog wallaahu yàlla yaalamu xam ne li gën ci yéen te wa antum yéen laa taalamuuna xamu leen li gën ci yéen ba ngeen di gaawantoo ko njëkkantu def leen ndànk de eh, yenent dafa am njàngal ma boo xam ne njàngal ma suñ ko waxee addu saraya euh, saraya addu zammi la Seydi Hadj Malick waxoon maa lii mu njàngal ma yi mi ngi nekk euh, zammi bi naa 47 mm-hmm. njàngal ma buñ ko waxee mooy attaquement yi nga xam ne attaque yi nga xam ne xeex yi nga xam ne yenent bi demul dafa yable mm-hmm. teewu ci ak boppam mm-hmm. dafa yeble délégation pour délégation bu dem xeexali ko mu toog Madinatul Munawwara da cee am boo xam ne nag ka ka woon mooy yenent bi yebal ko te ba mu koy yebal booba ci ni ma la ko mën a waxee ñu ngi toll ci maamu koor hmm. maamu koor nag bu jeexee nday koor moo ci ko tegu nday koor mooy rajab te rajab xeex ci dafa xaraam dafa bokk ci weer yàlla xaraamal ko ci xeex hmm. orma biñ ko jox hmm. ndeke bis boobu ñoom ñu dajeeg njàngal ma ba ñu da yéeféer yi ray ci ñoom ñeent maanaam ñu dajeeg ci ñoom yéeféer yi tabaarakallaahu ci boori taayif bañ leen ñu gis ñu yor njëgg mi ah fekk ñeent la woon hmm. ñu ray kenn ka jàpp kenn ka kenn ka daw tabarakallahu kenn ku ñu indi ko hmm. ci yenent bi hmm. ci ah, ñu dikk nag ne yéeféeri nag di siiwal ne yenent bi de moo waxoon ne du xeex ci weer wu yàlla xoraamal ko ci xeex te moom mi ngi ne xeex na ci ñun ndeka ñoom te ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci maamu koor la la ca saaba yi mbëkkanteeg ñoom ñoom ñu bëgg a yàq der nag na ña nga ko defee ca ndeyu koor wa ca benn fan la ndax dañ ko def ci bëccëg bi rek ngoon gi weeri feeñ mm-hmm. ñu bëgg laa ko foofu di dóor yàlla na déet te déewul noonu mm-hmm. hmm? même bu fekkee ne noon ngeen waxee ne yeneen bi noonu la ko defee mm-hmm. yéen a ngi def lu gën a garaaw lool li may bëgg a wax moo gën a garaaw xeex ci weer woowu yasaluunaka daañ la laaj ani sahri ca weer wa weer wa alxaraam bari bañu araamal ko ko xeex wala bari bañu ormaal ko ko xeex xitaalin fii xeex ca weer wa xaraam na xul ne leen xitaalun xeex fii ca weer wa kabirun bàkkaar bu mag a mag la de weer wu yàlla xaraamal ko ca xeex ormal ko yow nga cay xeex bàkkaar bu mag a mag la waaye nag wasaddun wàññi nit ñi tere nit ñi an sabila ci diine yàlla ji di campagne nit ñi pour lu leen di taxatayal ci diine wa kufrum bihi ak weddi yàlla wal masjidi ak wàññi nit ñi ca jàkka ja alxaraam bali ba ñu ormaal mm-hmm. wa ixraaju ahli ak génn ñañ jàkk ja minhu ca jàkk ja mm-hmm. yenanti baak ñi ko gëma mm-hmm. ak baru moo gën a garaaw fuuf gën a màgg bàkkaar fuuf indallah kon xanaa ñoom dee jeex na sama borom ne wal fitnatu bokkaale yàlla ak baru moo gën a garaaw fuuf minal xatli ci rey googu ñu leen rey kon li ngeen dafa gën a garaaw de wala yazaaluun mm-hmm. du ñu mës a dañ ñoom ñi gëmul yàlla mm-hmm. weer ak weer noor ak nawet maam ak mataar sët doom yëpp du ñu mës a dañ mm-hmm. yuxaatilunakum di xeex ak yéen jullit ñi xattaa yarudduukum ngir nañu leen delloowaat an diinikum ca seen diine ja maanaa ñu delloowaat leen ca weddi ga ngeen nekkoon projet bu ne société bu ne plan bu ne ñi ngi koy tëral pour bëgg a jullit ñi tabaarakallaahu bàyyi liñ nekk ñëwuñ ci ñoom la ñu ne mm-hmm. inistataau déglu la ci yàlla teg mm-hmm. ndegam mën nañu ko nag mm-hmm. dañ ko jéem nag waaye fa la mbir ma ne dana sotte du sotti yàlla yéen jullit ñi yéen laay wax wa man yartadit képp ko du mooyu murtat min kum ci yéen diini yii ci diine mu jox ko ginnaaw na maa duggan duggeet fa yamul mu deeca woo moom kaafiru muy aji weddi ah sax ca rek tëra tuub foo laa ko yooyu la gaa yi xabitat bap bappiku na mm-hmm. amaalum seen jëf yu baax ya mm-hmm. fi dunia wala axira amatuñ mm-hmm. leen ndax murtad dafa yàq jëf dégg de murtad dafa yàq jëf imam Malik loolu la wax loolu defoon day yàqu li imam Saafi def ne bu fekkee nit ki murtad dem mu yàgg tuubaat ñu ngi ñëwaat ci lislaam am na jëfam yoo xam ne moom dañ koy delloo yoo xam ne nag ko ci delloo siwaat am yoo xam ne yàqu am yoo xam ne du yàqu la wax mm-hmm. dégg nga mm-hmm. la gaay mm-hmm. asxaabu naar ñooy wa sawara hum ñoom xaalidun way bee lañu fiiha ca sawara soosa nee inna lesi naka gaay nga xam ne amanu gëm nañu wallazina ak gaay nga xam ne haajaru gàddaay nañu wa jaahadu ñu jihaad fi sabilillahi ci diine yàlla ji ulaaka yoola gaay yar juuna sañ nañoo yaakaar wax dëgg yàlla mm-hmm. rahmatallah mm-hmm. sañ nañ ko de mm-hmm. ndax nag loolu lañ fi am rëja buñ ko waxee mooy yaakaar bu ànd ak jëf ak nag mooy yakaar ju ànd ak jëf toujours naax saay da ca yomb ma ngoog wallaahu yàlla xafurun ku bëri sutura raximun sàngaraa ngoog euh, dañuy wax ne Seydina Omar ci boppam ak Muaz ibnu Jabal ak lenn ci sahaaba yi hmm. ñoom ñoo doon waxtaan ci sàngara ba mu yàgg hmm. ne sàngara de moom lu ko tax a moom day demee sa xel mi yóbbu sa alal nangam nangam daal doy na waar moom daal xam naa ne hmm. war nañ cee wax de ñëw aaya dikk ne wa min samarati naqli wal a'nabi tattaqisuna minhu sakaran wa risqan xasana am na ci sàngara dal loo xam ne wërsëg la mun ngeen ce am wërsëg mën ngeen cee am nangam nangam wax ba mu bëri a ah, ñu demaat ba mu yàgg mm-hmm. ñu waat laajaat yenent bi mm-hmm. aay ji wàcc ci mm-hmm. yàlla na njëriñ a ngi ci waaye bàkkaar a ci de looyul de ñu demaat ba mu yàgg saaba yi continuer rek ba benn bis kooku ñuy wax Abdurahman ibnu Awf def benn invitation boo xam ne sahaaba yi la ci invité woon ba ñëwee ñu teg ñam yi xeeti bernde yi tabarakallahu sàngara seeg lépp ah gars yi nag daal di jëfandiko ci ñam ya naan ca sàngara ba nekk ci kaw xefitan na tanga lang yéeg tëxa wàcc yéeg rek tëxa wàcc imaam ba nag moo gën a yéeg ñëpp <laughs> léeg-léeg nga dem ci yenn téere sax imaam bu ñu am ñu bañ am ñu <laughs> imaam ba daal yéeg na di julli timis ku yaayal kaafiruun laa yëpp mu coppati sànni fële ku yaayal kaafiruun aabudu maa taabudu ñu nag yéen yem li ngeen gëm nu gëm li ngeen di jaamu la ñuy jaamu ay banta dong la yàlla ne déet na di yéen a ngi lakk dëgg ko feccam ginnaaw di daal di indi aaya ne yaa ayyuha alladina amanu laa taqrabu salata wa antum sukaara dem ba mu jeex ñenn ñi nag suñuy jullee fajar ci la ñuy naan balaa tusbaar ñu wuri diggante boobu yaatu na ñeneen ñi moom ne diggante tàkkusaan ak tisbaar daal gàtt na naan xaju fi mm-hmm. diggante timis ak tàkkusaan it xaju fi mm-hmm. timis ak gee waxi nopp mm-hmm. suñuy tëddaat la ñuy laalaat balaa fajar ñu wuri ñeneen ñi ah man daal coono bi moo ci naree fekk ma bàyyi ko ñeneen ñi jaar fa bàyyi waaye a Omar tàyyiwul di wax na allahumma bayyin lana fil xamri bayaanan saafiya yow yàlla yàlla na nga ñu leeralal ci sàngara leeral bu leer naññ nga xam ne mbir mi daal wërwëral bi dañ kaa bàyyi moom la sama borom a laal tuuti ne yasalunaka mm-hmm. daañu la laaj mm-hmm. anil xamri ci sàngara mm-hmm. ijaaz la di ci naan sàngara naan gi gisuloo ko fi dañ ko fi xasafee xamru mooy lu muur am xel muur ko ba dootu ànd ak sa sago wal maysir ak carte yoote bëloot dinga maam ay lonaas bi ni mu tuddati sax péemi waaw kay mm-hmm. ak yi ci des mm-hmm. yooyu yëpp day dugg ci maysir mm-hmm. bii perte bii gañ benn abou sëydin taxaw fee ñoom ñett ñu ànd di yongaan sama gaay yi <laughs> billaay boo fa demee mu ne critim da nga xam ne lépp dëgg la seen mbege googu ñuy yor wal maysir ngay sànni fay téeméer te ngaa këpp danga ne waali xul waxal ne mm. fii ma nekk na ci carte ak sàngara mm. ismun bàkkaar mm. kabirum bu mag a mag bàkkaar ba ci nekk rëy na trop de waaw dégg de ndax carte nañ ko daan defee ñu yéeféer yi dañ daan rey seen nag wu rëy rëy wala giléem gu toll ni am seen façon bant yoo xam ne nag moom lañ ko daan ndalee bant bu ne la mu dal rek xam nga kooka la lay jël mm-hmm. moom nga dégg waykat bi naan lii fi dunya sihaamun mm-hmm. laysa fihinna rabihu mm-hmm. am nañ ci àdduna ay façon ngi bant ndal yoo xam ne bant yi am na ci yoo xam ne boo ci dalee doo dal doo daloo ci xam nga léeg-léeg bi dal ci sa kaw léeg-léeg nga dal ci kawam bu dalee ci sa kaw du ba <laughs> aywa mu ne innama sahmi waxdun wamiiqun wa safiixun fal faslu sahmun wa li tawmu sahmun maanaam sahmay ni wali raqibu moom itam salaasatu ashum ma ngoog maanaa waxd ci seen bant yi la bokkoon maniix ci seen bant la bokkoon safiix ci seen bant yi la bokkoon fasl nag boo ko rak bu fekkee da ngaa dal ci bant bu ñuy wax fasl da ngaa teeb bi teeb bi bant bu ñuy wax fasl benn cir ngay am ci nag wi wala gileem gi mm-hmm. benn saam kese benn kilo mm-hmm. donte yow tegoon nga téeméeri junni dangay ngay mm-hmm. bu fekkee tew am la ñaar ngay am raqib ñett xils ñeent naafis juróom musbal juróom benn mualla nag mooy juróom ñaar ta ngay teggee lépp innal mualla ala fil mayaasiri mooy da nga di sëñ Babacar di wax mu àllaa boobu lay junj foofu hmm. mu bant bi tudd mu àllaa hmm. soo ko teggee hmm. da nga ciy daal waaye wakk du moom boo ci euh, dalee ah dafa dal ci sa kaw de maneex zéro saweex zéro yii yëpp ay bant ndaleekaay la yoo xam ne dañ daan jël daan ko jëfandikoo ci seen carte yooyu le carte ma ngoog ne bàkkaarañ ca wa manaafi'u ak njëriñ mm-hmm. li naa si ñel nit ñi mm-hmm. sàngara boo amee njàqara boo ko naanee mu dañ mm-hmm. dalay jox kattanal sëy ah yii yëpp dala koy jox day reesal ñam day tax nga ñemee loo ñeme wutoon boo ragalee kon manaafi ala ci côté boobu wala déet moo tax Jaafar Saadiq daane wax ne yàlla dafa mosul yónni yeneen eh, Jibril ne demal ci yeneen bi ne ko kontaan naa ci Jaafar trop ndax dafa mosul jaar ci ñeent bég naa ci moom ci ñeent yooyu mu ñàkk a jaar mm-hmm. yenent bi ñëw laaj ko jaafar jaafar ne ko ah ñeenti mbir te xam naa ne man mosuma mm-hmm. wax sàngara mm-hmm. ba ma xamee day wàññi xel daal te man fu ma toll sama xel di yokku tax ma man ma bàyyi ko fële njaaloo itam jaar ndax xam naa ne suma ma ko defee ñu def ko sama njaboot ma moytu xëram itam lu tax mosuma kaa su jóotal xam naa ne mënul njëriñ mënul lor kon sujjóot gi ban njëriñ lay am mm-hmm. fen itam musuma kaa def mm-hmm. lu tax kaa def mm-hmm. damaa gis day wàññi sama daraja gisuloo ni mu déggee woon la yàlla kontaane woon ci moom kon munaafiq la linnaas waaye sama borom nee na am na njariñ de pour nit ñi comme yooyu ma la wax de ndax carte gi dégg nga maam bu fekkee da ngaa dugal téeméer nga carte ga jaay gañ ay million nag bu ngeen ah <laughs> daa téye naa set bi tey waaye bilaay bu ëllëgee diis bi la caw caw yu métti mm. <laughs> gars yi da la ñuy wax boo nga nekk fii li jëndi fas way daw ci gannaaw laaxira mm-hmm. kooku xam nga ne métti na mm-hmm. sama borom ne wa ismuhuma mm-hmm. seen bàkkaar ñoom ñaar dégg rek moom foofu lim dawal a baadal ijmal xam nga ijmaaloon ne na ismun kabirun wa manaafi'un naas mu départ ne wa ismuhuma nag akbaru min naf'ihima loolu lit naab la ci bayaan dégg nga ko bu baax mm. ñoom ñaar seen bakka mm. ba cay juddoo ci naan sàngara ma mm. bañante ga rayante ga ndax xam nga nit bu fekkee da nga kaa gañe ci carte gañewaat ko wax dëgg yàlla bu yàggee ngeen commencé noonu nag nangu këram nangu ay soxnaam waaye kooku juba mu si yàlla bu mu am ñetteel bu mu noboon nag wala ñaareel bu mu noboon nag sa waay <laughs> akbaru min nafiihima ma ngo aha mu paraat ci wa yasalunaka daañu la laaj maa laa yunfiquun ana lan la lañuy dépassé xul waxal ne dépassé leen alaafwa lu ëpp seeni soxla waxuñu ndesit de ndesit xanaa li des ci say soxla waaye lekka lekk jëfandikoo jëfandikoo bu amatoo ci benn soxla nga ne da koy yóbbu daa ja ñaaw na ëpp na kat solu yére bi ba mu toj amatoo ci soxla mhm. wala ji nga maam jëfandikoo tey ba mu màggat mhm. amatoo ci soxla nga xam ne waa ji tuur mu yóbbu ko garage mhm. teg nga ko fitna bu fekkee koo xam ne amutul gasoil bu mat bëgg na oto dafa métti moom rek <laughs> portal boo xam ne dem nga ba tabaarakàlla di alaafu mooy bu fekkee téeméer ngay dépassé yor nga fi ñaar téeméer wala téeméeri juróom fukk juróom fukk mooy afu bi keneen ñëw soxla dépasse nga loolu ngay joxe waaye waxuñ ne loo jëfandikoo ba amatoo ci soxla ku la ko joxoon doo ko jëlati mm-hmm. tabaarakallaahu nga koy joxe de déedéet mm-hmm. waaw kay mm-hmm. loolu la xawaas yi di def xawaas yi comme classe ak euh, ñoom Cheikh Diouf gii ñoom boobu lañuy def wala ñoom aarif ñii xawaasul xawaas yi nag di ñoom Ibrahima bi wootee xurbaaniya ñoom <laughs> ñoom dañuy def wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim qasaasa ñoom téeméer juróom fukk bi yëpp la joxe su nit ñëwee donte amaguñ dépasse joxe toog xaar yàlla mm-hmm. tolluwaay la nag mm-hmm. <laughs> tabaarakallaahu lool la mm-hmm. alaaf waaw wute wuñu dégg loolu xataa tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen am mbaax mukk loolu da ngeen joxe la ngeen gën a bëgg loo xam ne ku leen ko joxoon ngeen jël ko xam nga ne juróom fukk yee ko la ko jox nga jël ko ok waaye te ab ceeb Mm. glacé ko glacé ko ci sa consulateur ba motoo ci soxla ba mu xatal la fa ngir nga am leen loo fa bëgg a def jëneen yéen a consulat yoo fa bëgg a consulé mm. tax nga di ko yóbbu naan nañ yóbbu daara ji mm. ñaaw na ñaaw na kat mm-hmm. kay mm-hmm. aha mm-hmm. alquran mooy wax du du sa wax de alquran mooy wax kadaalika nekk nii mu leeralee yu bay nu day leeral allahu yàlla lakum hmm. ñeel leen alaayaati hmm. laallakum ndax leen tatafakkaruun ngeen mën xalaat bu baax a baax hmm. fi dunya ci adduna wal axira wa yasaluunaka daañu la laaj anil yataama ci mbiri jirim ndax ba alquran ne inna alladina yakuluuna amwaalal yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira affaire bi da leen a dépassé tax ku ci amoon jirim da kaa ber ci lekk di ka toggal su ko defee jirim ba la nga koy toggal da koy ëpp mu dem ba yàqu bañ ci jaaxle ñoom ñu yoroon jirim yi mm-hmm. mu tiis ci ñoom lool ndax ber gañ leen ber mm-hmm. yàlla nag dikk mm-hmm. kenn kuy sahaaba yi ku ñuy wax Abdullah ibn Rawaha moo ñëw ci yéen bi ne ko ah, affaire bi métti na nag jirim yi ñuy ber te gis nañ ne mbir mi yàqan ci te ñun ñu ci bëree bëri ñu leen yor amuñ doole te dañoo joxase woon mbir mi ndax léegi boo ko bëggee beral sàmm boppam beral bopp day metti te mm-hmm. benn sàmm rek a fi nekkoon daan boole jur gi yëpp mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu lijjanti détail ba mu bëri mm-hmm. yàlla ay ci dellu si leen wàllu mbir mi nag waaye na tëddee yoon wa yasalunaka daañu la laaj anil yataama ci mbiram jirim qul ne ak yéwénal wala yéwénal lahum ñeel ne leen ci alali jirim yi yéwénal googu kat xayru moo gën ngeen bañ a yéwénal wa in tuxaalituhum ndegeen jaxase ngeen nag jirim yi seen alal mm-hmm. bokki bitig mm-hmm. bokki jur mm-hmm. bokki kër ah fa ixwaanuk bokki compte banque ak yëpp seen ay bokk lañ ci diine ci pas-pas ndax yéene seen kilifa yéen ñi ci yor jirim yi nag di def ci njirime ci alali jirim yi la leen neex yëg naa ko wallaahu yàlla mu yëg na al mufsida ñi nga xam ne ñooy jaxase ba pare di profité di lekk alali jirim bi pour balaa muy màgg minal musli ci way yéwénali ñëpp xam naa leen dinaa lijjanti mbir yi te walaw sha allah bu neexoon yàlla laanatakum mu xatal leen ne alali jirim nee alali kilifa gi nee bu dara jaxasoo bu dara booloo te boobaa dina métti ci ndax lépp yaa ko yilif far force te daa ko yilif te dana nekk coono ci inna allah naka yàlla azizun aji not ci nguuram la waaye xakimun aji teg mbir fa mu yelloo la mm-hmm. Mm-hmm. yàlla dikk ci mbiram kër mm-hmm. comme jeexal na ibaadaat yi mm-hmm. saw moog salaat ak zakat ak yu ni demee ak xaj lu muy ñëw mooy mbiram kër lay ñëw gis nga mu muamalaat yooyu ci lay ñëw nag porte wutul ba saar di jeex ndax affaire day nag affaire nangam nangam yëpp dafa cee dugg si leblenteeg jënd ak jaayanteeg yooyu yëpp dafay dugg ci dig digal boobu euh, am benn jigéen boo xam ne dafa gëmoon yàlla dégg nga benn góor boo xam dafa gëmoon yàlla coroom sam ndabo noboon nag ca màkka ah gëmoon yàlla moom mu dem ba bëgg ko takk moom góor ga yàlla ne déet bu mu fi amee bu mu fi amee kat yéeféer warul takk jullit warul takk yéeféer ab bokkaale kat déedéet jaaduwul kon yow nga ne jullit nga alal jaral la nga jël sa doom bu jigéen wala sa njaboot di ko jox koo xam ne gëmul yàlla mm-hmm. doom ju ca juddoo yéeféer lay doon mm-hmm. léeg-léeg benn benn yi ci tuub tuub lu sax nag mm-hmm. tuubi dóor dong la tuubi dóor mart dong suñ demee nekk ci lañ nekkoon doom ju juddoo di nga am ay siti yéeféer yu dul jeex nag nga war ko lijjanteeg sa borom après wala tankihu bu leen denc bu leen may bu leen denc mukk almusrikaat bokkaalekat yu jigéen yi xataa yumina mbate bu dañoo gëm bu leen leen denc ndare bu dañoo gëm mm-hmm. mooy ab tubaab loo ko nopp nopp nopp nopp te gëmul yàlla mm-hmm. ak lu mu bëri bëri alal mm-hmm. bul wax dafa may utal kayit bu ma Europe dafa may defal nii dafa may defal naa déedéet jaaduwul cib jullit sama borom ne wala ammatun jaam bu jigéen di jéebéer muminatun bay aji gëm xayru moo gën fuuf ca yàlla mi musrikatim ci góor soo xam ne ab bokkaalekat la te beneen bi ci def sax mm-hmm. doonte fee mm-hmm. yow kuuy nga fay doon rek sax nag mm-hmm. ndax jaamu jàmbur moom boo ko takkee kuuy rek nga fa yow waaw kuuy rek nga fa de nekkoo fa leneen nag ndox doom yi doomi jàmbur la moom moo leen di doom yi <laughs> kenn mësul dégg loolu wala waa ajabatkum doonte comme yéeféer yooyu yéem nañ leen ci taar ak alal ak askan wu ñu bokk yax bu réy ba ñu bokk bu mu tax ngeen engagé leen jaaduwul wala tunkihu mm-hmm. yéen paay yéen laay wax mm-hmm. bulen may mm-hmm. almusrikiin yéeféer yi góor yi ya bàyyi ko bisim réew dugg ci réew mi not sa doom bu jigéen bu leen ko jël may leen leen de xataa yuminu lu dul dañoo gëm-gëm gu wér saa borom ne wala abdun jaam muminun bay aji gëm xayrul moo gënal yàlla fuuf mi musrikin ci ab bokkaalekat boo xam ne gëmul yàlla mm-hmm. nga di koy jël sa doom bu jigéen mm-hmm. di ko ko jox mm-hmm. lu ci juddoo di yéeféer walaw aajabakum donte comme tubaab bi wala yéeféer boobu yéem na la ci taar ak alal ak lu ne donte xëpp na la alal ju dul jeex jëru ko ulaayka ñooña nga xam ne dañoo gëmul yàlla bëgg a denceeg seen dencante seen i njaboot ñoom ya doon ne dañ leen di woo ila naari jëme leen ci sawara ndox duñ santaane lenn lu yàlla santaane lu naqari yàlla ci la ñuy xëy ci la ñoo gont wallaahu yàlla mm-hmm. yadoo day woo nit ñi mm-hmm. jaaree ko ci làmmiñ yenent yi ak ñi fi wuti yenent yi mm-hmm. ilal jannati jëme leen aljana wal maxfira ak njéggal lépp mu ngi amee bi iznihi wayu bayu dana leeral aayaati ay aayaam li naa si ñel doomu aadama yi laallahum ndax la ñoom yatazakkaruun ñu mën waaru xam ne lii yàlla bëgg na ko lii yàlla bañ na ko ma ngoog saxaaba yi mm-hmm. dañuy am ñu ñëwoon di laaj yeneen bi ñun daal gis nañ yahud yi mm-hmm. seen soxna yi bu ñu indisposé dañuy beeru taxaw fële mm-hmm. dootuñ lekkate ak ñoom dootuñ fanaanate ak ñoom dara ko te loolu ñu ngi ko jëlee woon ci jaahili yi nasaraan yi nag ñoom tabaarakallaahu duñ teqali koo soxna yi ñoom bu soxna yi amee mbërëg lépp ñoo ci bokk yam ñoom daal fuñ ñu soxlaa rek dal ci kaw ñun nag dañoo bëgg nag sariya leeralal ñu loolu sariya ba dikkee nag di leeral loolu mm-hmm. jullit ñi ba yàlla ne da ngeen beru jigéen ñi suñu amee mbërëg mm-hmm. jullit ñi ñàkk lu ñuy def dem far dëkk ci àll ba ñoom bu soxna ñu amee mbërëg daal ñu dem dëkk ci neen fooy fooy ga mm-hmm. ah waaye ñu dem ba ne yeneen bi lii métti na ndax yëre yi ñu am bëriwul te mu munuñ kaa yóbbu ci àll ba sàngoo ko bàyyi jigéen ñi jigéen ñi tam muñ ko sàngoo bàyyi ñun dañ ci loro yeneen bi ne yàlla waxu leen loolu de yéen a déggul de lim leen wax mooy bu leen leen jege jege sëy mën ngeen a bokk benn lal ñuy togg ngeen di lekk lépp mën ngeen kaa def mm-hmm. waaye nag sëy daal bu mu am mm-hmm. dégg nga mm-hmm. wa yasalunaka daañu la laaj anil maxiidi ci mbirim mbërëg xul waxal ne azan bëri lu mu xasa foofu nag kay jekki-jekki ne lor rek la jeex na azan lor la tasbih boobu baliix la de faatazilu mm-hmm. beru leen mm-hmm. annisaa jigéen ñi mooy wàcc beru leen beru ñàkkalaal fil mahidi jamonoy mbërëg mm-hmm. mën ngeen a bokk ak ñoom néeg bokk ak ñoom lal ñu togg lekk yépp mën na am waaye daal laal lay bañ mën ngaa bànneexu ci lépp nag ba mu des diggante jumbax ba ak bëti oom ya foofu moom dafay xaraam bu la seytaane mënee nag ba nga ba nga jotee ci moom ci jamonoy mbërëg booy xool yenn téere yi dañ naan laa ah am na alaman bu la war nag bu mm-hmm. <coughs> sarax boo war a génne saraxe ko ngir yàlla jégal la bàkkaar boobu nga def mm-hmm. am na téere yu wax loolu mm-hmm. wala na bu leen leen jege-jege laal xattaa yet hur na mbate bu dañoo dem ba set wecc wecc wecc mooy mbërëg ma demee ba set ñu sangu ah foofa nag mën ngeen leen a jege-jege laal nag <coughs> ne fa iza tatahharna mm-hmm. ndegam dem nañu laab ñoom jigéen ñi mm-hmm. fa na mm-hmm. dikke leen leen min xaysu amarakum comme ni mu leen ko santee woon allahu yàlla mooy ne leen ko yàlla sante woon avant ñuy am deret dikki waat leen leen noona inna allaha naka yàlla yuhibbu bëgg na lool attawaabiin ñi nga xam ne dañuy tuub bàkkaar yi ñuy def seen diggante ak moom juum nga ba sëy ceeg ñoom yuhibbu tawaabin mooy tuubal rek te dellu mm-hmm. wa yuhibbu bëgg na ba tey mm-hmm. al mutatahiriin mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy laabal seen xol ba ah, ci yu bëree bëri nee na yooyu ñu it yàlla bëgg na leen yahud yi daan wax ne sa soxna boo ko amee ngay sëy ak moom sëy moom ci sawekaay bi waaye yaa dikkee ginnaaw doom ji bu juguloo juddoo dafa patt dafa def nii dafa def naa alxuraan ne du dëgg da nga wax bu waa mm-hmm. li ñuy bañ mm-hmm. mooy ngay sëy moom ci demeekaay duus bi mm-hmm. loolu lañuy bañ waaye boo ko dikkee bi côté ko itam position boo mën a jël rek te su ci demeekaay duus bi rek baax na lenn li nag teggin may na la ko wala may la ko nag loolu ngay lijjanti waaye sariya du la ciy wax dara nisaakum seen soxna yii xarsun mbay la tool la mm-hmm. place bayekaay la mm-hmm. lakum ñeel leen mm-hmm. bàyyil xel nag alxarsu wa zaru am na farq bokkuñ de lafatum ma taxrusuuna antum tazrauna am nahnu zariun foofu ñaari baat yi dafa yàlla sësale de xars buñ ko waxee mooy jël gi nga jël jiw wi suul ko ci suuf waaye saxal geeg màggal gi ci kan la aju mooy zaro moo tax ba mu waxee na yéen saxal ne yéen ay jidee hmm. waaye gannaaw bu ngeen jiyee ndax kay kan mooy màggal kan mooy def nangam nangam na hmm. ba dégg nga loolu hmm. kay xar sun la ko seen tool tool nag da koy waajal foofu mënees na cee dégg lu bëree bëri soxna des koy waajal waaw ndax albaladu sayibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbi ba mu jeex te yéen bi daana wax ne mm-hmm. maa ngi leen di ku moytandikuloo gàncaxu sën mm-hmm. gàncaxu sën nag mooy soxna soo xam ne tabaarakallaahu la yàlla xam doy na mm-hmm. kon tool boo ko waajalee ruuj ko def ca war a yi nga war a def yëpp tabaarakallaahu dana def yàlla mën na def sutura bu fekkee meññante am na rek mu mën a sotti na ko bëggee waaye bu fekkee waajaloo ko cam bandi doo nga cay génnee faatu mm-hmm. dikke leen mm-hmm. xarsakum seen place bayukaay booba mm-hmm. dikke leen leen ñoom soxna yi an ne si itum mu leen mën di neexee day toog day taxaw day tëdd day jublu benn day joxe ginnaaw day joxe kanam nu ci mën di doon rek tabaarakallaahu an nee si itum position bu leen neex rek farfaare leen position booba ba mu day la ba mu loolu ma la waxoon léegi nee waxadimu dawal leen jiital leen li anfusikum ñeel seen bopp mm-hmm. su ngeen dee bëgg a sëy ak soxna si mm-hmm. ñaani sunna yi mm-hmm. bu leen ko fàtt fàtte waaw bismillahi rahmaani rahim allahumma jannibna seytaan wa jannibi seytaana maa razaqnaa loolu na nga koy faral di ñaan ak ñaan gu baax goo mën a dolli ci loola rek hmm? waaye daal dara hmm? ëpp na de te yeneen bi saa daf ne kuy wax ñaan gi su ci yàlla xéewalee doom seytaan du ci mën dara boo gisee seytaane jekkuñu mm. ah lii de yàlla bu dafa am ci mar day taali léegi yi moom mm. kenn musul dégg loolu nit ñi sàggane gi ñu sàggane façon ñaan yi mm. wattaqullaha ragal leen yàlla ci lim leen sant waala moo xam leen annakum naka yéen mu laa ko way daje ngeen yàlla de mu lijjanti lépp wa bashir bégalal aha way gëm ñi bégal leen ci aljanna te xupp leen it ci sawara